suñuy jaar jaar daal dañu nekkee ñoom dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam. xanaa wax ni su ko xaar yi seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. anta raximu samadu raxmaanu al muminul manaanu ikfil balaa wa jumlatal wabaa'i wa sox ilal ahdaay ku la daa'i kon mbokku jullit ñi mbokki taalibe yi nu ngi leen di nuyu di leen siyaare di tàmbale suñuy kàddu ci sant suñu borom bu baax moom bi ñu defal tawféexu fekkewaat jataay bii yàlla nañ ko yàgg fekke at yu bari te saa su nekk muy jëm kanam ci barke Cheikh Moussa di sant bu baax ci kàddu yi ñu jot a dégg ci ginnaaw ak si karsi wax dëgg yàlla am na solo ndax bis moom borom rek lay nuru kon jëwriñ ñu ngi lay nuyu di la siyaare di la ñaanal yàlla daanaka duñ wax lu weesu lu dul ñi jiitu li ñu wax rek ci yow ku ne gis na taxawaayam ku ne gis na jaayanteem ku ne gis na pas-pasam soxna may rek wax na ko ci biir kàddoom ñu ngi koy saare bu baax wax dëgg yàlla moom it muy jàmbaar lool waxtaan wi daa gàtt loolu naa gën a yaatal ndax léeg-léeg bi muy wax may naan jigéen juy waxee fii loolu néew na ci jamono kàddu gi bi mu ko tàmbalee ba fi mu jeexee baat bi mu gën a jëfandikoo mooy yàlla yàlla yàlla yàlla kon bu ñu yàlla yàlla yàngoo mooy li te mbooleem soxna yi toog noonu koo ci joxoon kàddu it noonu lay demee rek baat bu ne mën nga koo jëfandikoo ngir tudd li nga bëgg a tudd ak wax li nga bëgg a wax waaye leer nañu ne baat bi ci ëpp baatu yàlla lay doon kon Cheikh Moussa gàcce ngaalaam wanewul ku dul yàlla tegtalewul ku dul yàlla looloo waral ay taalibeem seen waxtaan lépp ci yàlla la jëm bañ na yàlla yàlla yangoo yàlla yàlla du wut ñaari yàlla ñetti yàlla ñetti yàlla jomb na ñaari yàlla jomb na waaye kàddu gee bari yàlla yàlla yàlla yàlla bañ na ñii daal foo leen fekk yàlla yàlla rek yàlla yàlla rek bañ na yàlla yàlla yangoo moo tax ma ne tur la boo xam ne daraja la maqaama la kenn du ko faxas tur wu neex la waaye nag sas la bés bu noppee wax yàlla ba wax leneen ñu war ñoo tuddee leneen rek te loolu wal iyaazu billah te loolooy li tumuraanke ci jamono bi ñu toll su ko defee nag ñaanal jëwriñ cuun bu baax dangay faral di wax ne ak taalibe buñ ko jóoroon ci barab bépp jikko bu mu laaj jaayante bu mu laaj pas-pas bu mu laaj boo ko làmbee ci jëwriñ cuun fekk ko ci kon ku jara ñaanal la te du wut ne doxuk benn fan la ñaari fan waaye durub bi nga ko xamee ba bi nga koy noppee xam daanaka ci loola ne damay faral di wax ne cuun gis ko muy dox ci yittey boppam jafe na wala jomb na sax mën naa koo wax saa boo ko gisee muy dox rek yittee jàmbur la te yonti saa sam waxoon ne xayrukum xaadimukum ki gën ci yéen mooy ki leen di liggéeyal ki gën ci yéen mooy ki leen di liggéeyal te daa mel ni dañoo yaakaar ne ki gën mooy ki ñuy liggéeyal fekk ne déedéet ki gën ci yéen mooy ki leen di liggéeyal xataa buñ ne ki ñuy liggéeyal nga yaakaar ne dañ koy liggéeyal ngir dane nangu ca kaw deful dara déedéet yow mi koy liggéeyal dalaa liggéeyal lu gën yow li nga koy defal sëriñ bi ne nangu ca kaw taalibe bay daw suba ngoon guddeeg bëccëg taalibe nga gis liggéeyam waaye sëriñ ba su matee sëriñ liggéey na ci taalibe boo xam ne moo ko jaral li mu koy liggéeyal moom te du ko fay àq bu mukk ci àdduna ba da nga dégg sëñ Tuubaa ne abdullahi wa xadimu rasulihi moom jaamab yàlla la waaye kan lay liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa waaye xoolal li yonent bi liggéey nag moom wala boo nee nangu ca kaw ñu lay liggéey rek te yow liggéeyoo dara yow mal xiyaam di nga am mbetteel gis nga ki ci suuf di la dawal yow mal xiyaam dana jot ci yàlla loo xam ne yow mi toog ca kaw te defoo dara doo ko jot àdduna ay tool la ay tool na ku fi dikk fas yéenee féexlu képp képp nga fi bëgg a nekkee bés boo faatoo torox léeg-léeg sax bala ngaa faatu ngay torox barab boo toog ne duma fi jóg yàlla xëpp la xiif xëpp la mar xëpp la coono bu la neexee bu la naqaree moo tax génn liggéey rek waaye nag liggéey bi dañ ci dul sóoraale àllaaxira li ci ëpp la ñuy liggéey ngir àdduna rek ku toog képp képp fasante ay loxoom daanaka gisoo ko bu lekk jotee nooy def da lekk di da sàq mi di bu la neexee bu la naqaree jëmm ji ñu yàlla jox boo ko seetantalee rek xam ne ay jumtukaay la ay njëfandu la ba mu jeex ay njëfandu la ku la ko jox daa bëgg nga liggéey moo tax àdduna ay tool la boo ko jàppee tool dafay jàppandal ci yow bul xëy nag dal di bay déedéet demal wuti xam-xam dafa am xam-xam boo xam ne wala xam-xam yoo xam ne am bi nga koy am moo lay jàppandalal mbay gi ba boo noppee ci mbay gi yàlla mi nga xam ne moo la fi wàccee ci tool bii daal di gërëm sa liggéey boo xam-xam yàq rek mën ngaa sonn lool mën ngaa góorgóorlu lool te du la jural benn njariñ du àdduna du àllaaxira ndax xam-xam moo ko lalul kuñ jëloon àll bu yaatu boo xam ne suuf sa nangu na jox la jiw woo xam ne jiw wu baax la te amoo xam-xamu mbay doo fa génnee njëriñ moo tax ni ñuy jiitalee xam-xam ci suñuy mbiri àddina ndax waruñu woon yóbbu ci ñu seetantal xool ba xam suñuy mbiri àllaaxira suñuy mbiri diine ñi ngi ciy jiital xam-xam balaa ngaa woote ne maçon laa tarbiw nga xam-xamu maçon ba nga xam ne ku la ne tabaxal ma nga mën koo tabax xolam sedd mu fay la ngeen dem ci jàmm waaye boo amul xam-xamu tabax mu jox la tabax loola ndax da tabax lu baax ndax da ngeen juboo ci poñante ngeen jëm xam-xam baa fa nekkul niki noonu ci menuisier niki noonu ci bureau yi koo gis mu toog ci bureau rek lañ ko fa tegee du jëmm jaag sant waag moo neex déedéet xam-xam ba lañ wóolu su ko defee nag jaamu yàlla itam dafa aaja ay xam-xam yoo xam ne moo lay jàppandalal nga mën a jaamu sa borom te boo ca noppee yàlla daal di gërëm xam-xam yooyu leen nag moom lañ gën a ginnaawal ci kaw suuf xam-xamu diine xam-xam bi lay xamal sa borom ba mën laa xamal la yàlla gërëm nga sax ca la yàlla gërëmul nga won ko ginnaaw ba faw xam-xam yii ñim yitteel bëriwuñ léeg-léeg ñi mu yitteel sax bañ koy daw di ko wuti rawatina buñ dee ndaw dañ naan ña ngay tardé ndax xam-xam yiñ gën a gërëm ñu ci baree bari mooy xam-xam buy defar sa àddina rek te àddina moom du defaru amul kuy faatu te doo fi bàyyi ay mébét du jag gannaaw du jag nag am ci sago fexeel ba am loo lekk am loo naan am foo suturloo ak foo tëdd boo ko xasee ba am yeneen yoo wutati rek lu dul waajal sa allaaxira daanaka yaa ngi dugal sa bopp ci guuta kenn du ko jagal wa rubama yakunu ja shawaxil muxtarima sëñ Tuubaa nee na bëri na ku nekk borom soxla yu bari dee daal di ñëw dagg soxla yépp te yow sa dund gi daa mel ne da nga koo jeexal ci wut kër wut oto wuti soxna xëy nag bàyyi leen ci barab bii dugg ci barab boo xam ne ndax am nga fa kër yow ndax am nga fa soxna ndax am nga fa lu la wéetal lu dundal boo ko amul dana doy waar yi te yag yàgg dem fa bu la neexee bu la naqaree moo xam-xam nit ki bu fekke yewuna na kenn du ko soññ ci wutil xam-xam fay xam jeriñal xam-xam moo dama faral di wax ne xam-xam warta don luxe luxe luxe Manam lo xamne lu ganjaru la dedet xam-xam limi jural nit looloy mbir mi looloy li ganjaru waye xam-xam ñepp ko waro nam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin yontu saa sallam dafa wax ne sàkku xam-xam farata la ci jullit bu góor farata la ci jullit bu jigéen farata nag mooy loo xam ne kenn du ko wutal kenn kenn ku ne dalaa war nga wuti ju ko waaye xoolal réew mi borom xam-xam ni mu ci amee daraja kuñ ne borom xam-xam la daanaka day daal di mën a tàmbalee gongeeku kaay waxtaanal ñu kaay soññal ñu kaay soññu ñu kaay waar ñu kaay leeralal ñu nàngam mel ni moom mi mu leer ci moom ba mu leen koy leeralal moom rek ko waroon a wuti moom ñëw leeralal leen déedéet ni mu ko wuti jee ba xam ko noonu ngeen ko war a wuti jee ba bu ci boole lu ci bokkul ngeen xam ko bu ci génnee lu ci bokkit ngeen xam ko lii mooy li war a am di waaye waajee wuti xam-xam boo ko dégloo mën naa juum sax te doo xam ne juum na moo tax ñu ne isa zallal aalimu zall bi zilatihil aalamu borom xam-xam bu fekkee tarxiis na ca tarxiis gam tarxiis daf cay yóbbaale aalam bi aalam bi ndax ñi koy dékk seen nopp yaakaar ko moo bari te mën naa juum boo amee xam-xam nag bu juumee rek nga xam ne juum na loolu nag kenn ku ne daf laa war ci lislaam boo dee ku sóobu tarixa mu war la ci sa tarixa nga fexe ba xam ko xàmmee ko ba ku la ci woo ci lu dëppwul ak tarixa ba nga xam ko lu am solo la moo tax benn borom xam-xam dafay wax ne faarifil xaq taarif ahla dane fexee la xam dëgg bés boo xamee dëgg rek képp ku bokk ci ñun dëgg nga xam ko du wut ne diwa ko wax rek dëgg la bëri na ñoo xam ne ci gaal gi la ñuy dox diwa ko wax dëgg la déedéet danaan da ngay xam dëgg yow xamal dëgg bu di waxe ba noppi nga jël lim wax natt ko dëgg xool ba xam dëppoo naam dëppoowul bu dëppoo nga ne dëgg la bu dëppoowul nga bàyyi kook ay waxam waaye day fekk yow mi toog di déglu nag nga xam dëgg yow waaye bu dee nag dëgg toogaale woo ko dangay ngay xaar waa ji wax nga ne dëgg la mën nga ne dëgg la ci lu dul dëgg ndax peesekaay bi lay dimbali ba nga xam ba xam dëgg la am du dëgg amoo ko te li ëpp ci saa Sénégal yi mooy sénégalais yi loolu lañ amul nattukaayu dëgg l'islam diina ju mat sëkk la biir ak biti kon boo nee moom ngay dund rek desee dëggu desee jub desee am pas-pas di yàlla bi bis yàlla tey bii war ngaa xam ne sa lislaam matut te da ko war a mottali yoon wi ngay jaar ba mottali ko danga ko war a gëstu xam ko jaar ci tam jaral la kenn ku ne boo amee gàllankoor ci sa yaram balaa ngaa am jàmm gàllankoor ko da ngaa moom te bëri na ñu muy dal tànk bi da koy jëfandikoo num la neexee solos tànk sax doo ko xam li fekk tànk bi mettiwut wala mu am góom ba mënoo dox ci ngay xalaat naan tànk bi bi muy jàppandal ndekete mënal la na ma nangam ak nangam ndax mos naa cee toog man képp ci sama ruq sant yàlla ci tànk bi nga xam ne laajul réparation defaraat waaye doo ko yëg sax li fekk mi ngi normal moom doomu aadama dafay beew gis boppam bu jagadee nag muy soog a dellu ci yàlla ñaata yoon la ko suñu borom wax ci alxuraan moo tax dégg nga sëñ Tuubaa wax la ci masaalikul jinaan ne la métit yi coono yi fitna yi nattu yàlla yi nee na xéewalu yàlla yaa ngoog que ñoo lay delloo ci sa borom jaam lépp lu koy delloo ci yàlla bu ko yaakaaree ne nattu la wala boog lu bon la daa xamul boppam ak réere yàlla tax waaye nit lépp lu koy delloo ci boromam mu koy koy gën a ragalloo di ko ko gën a loo loolu tawféex la ci moom te boo seetloo jaam ñi loolu la ñuy jàmbat fekk ne moo lay delloo ci sa borom xoola tey dee rek boo amee mbokk mu la jege mu faatu li ngay njëkk a def mooy caalit daa caaritoo ngir kifatu de waye da ngaa dalaa la fatali lo xamne ding ko def yag yag te fàtte woon nga ko ki sa bop nga tital ca nga jëm te mo ne bu ken fatu wulit war nga xamne yow kuy fatu nga jarul xaar nit fatu fatu ne da ngay fatu wala nga dem almeere ngir liku ne da ngay fatu dedet nit nga da ngay fatu yalla mi la bind te tàgguwu la moo lay ray sa bu ko sobe bàyyi fi sa bop yalla may ko kenn. bu ko doon may yont bi la koy may waaye àdduna moo baaxoo di dem ak dikk ku mu neex ku naqari dara du taxaw nag koo yaakaar ne bi fi bàyyi ko dara du baax dana fi bàyyi ko te lépp di baax bu si yàlla tey ku fi mënta ñàkk amul kenn képp la muy yàlla ku dul moom mën ngaa ñëw dem te dara du yàqu kon kay ñun ñu woyof ñii buñ bëggee yaakaar ne fii lañuy sax ba faw wala suñ dund yi am na solo soo xam ne waruñ fee mën a jóg dañuy nax suñ bopp lu fi jóge yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëlee fi Serigne Touba jëlee fi Cheikh Tidiane jëlee fi Cheikh Moussa Cissé mii ku mu fi bàyyee da ngay nax sa bopp li am solo mooy fañ jëmmatoon seen dund ba jëlee gim leen fi jëlee sax daa mel ni jógewuñ fi loolu lañ war a xalaat ji foofu suñu dund ñun te foofu lañ ñu wooñoo waaye ñun feneen lañ leen di wuyu dañ lay woo ci guy gi nga wuyu ji ca daqaar ga sëriñ bi dalaa woo ngir yóbbu la ci yàlla sëriñ bi dalaa woo ngir nga méngoog yónent bi alayhi salaatu wasalaam ci jàngaleem yow nga koo wuy nag ci kañ ko yëkkati ko képp ku dul mën ko suufee ko woyofal ko gënalante sëriñ gi ci Sénégal kéemtaan la fexee gënee ci sëriñ si moo ëpp solo foofu di leen gënalante ñoom da ngay fexe ba topp leen bañ defar la nga gën di ku baax koo xam ne sax mbaax ak sa ngëneel doo ko jaay sa morom waaye ku jëflanteeg yow dina xam ne kii ku defarul la ku gën la biir ak biti li mooy lépp solo waaye tijaan buy bañ murit murit buy bañ tijaan coow loolu nit ne xus ci réew mi kéemtaan la foo ko natt weesu na ko waaye ban njariñ la ndax Seex Tijaan moo ne kaay leen gën a lante diw wala sëñ Tuubaa ne leen kaay leen gën a lante maag diw déedéet loolu suufee yaay kii suufee loolu am la ba noppi moo tax mu wax ko kon dara jaam ba faw du jëm suuf kaw képp la jëm te ku ne gis na ko day yokk saa su ne boo yaakaaree ne nag sa wax mën na koo yokk wala keneen yaakaar ne waxam mën na koo wàññi yow dafa mel ni li sëñ bi gëm li sëñ bi wax sax gëmoo ko yow diw wax na lu safaanu diw nangam dama koy tontu ngir su ko defee dara jëlee sëñ bi mu bëgg a suufee yow sëñ bi neen na du du wàcc sëñ bee ko wax sëñ bi moo ne du wàcc kon kay boo ko mënee laa bire laa bire ko te laa bire gi na tege ci jàngalim sëñ Tuubaa lu ba tabaay xel la léeg-léeg nit mën naa diingat wala mu wax lu juba jubadi nga ne danga koy gàgganti gàggantee ko loo xam ne yow mooy nga sëñ tubaa yow mooy nga ndigalu sëñ tubaa lu ko jar murit saa bu wàccee ndigal murit saa bu wàccee yar ak teggin keneen la topp ndigal waaye du sëñ moom te léeg-léeg nga jéem a jubbanti koo xam ne ñàkk teggin gi nga ciy rax boo yaakaar ne sëñ tubaa gërëm na ko da ngay sa bopp sëñ tubaa daraan wax ne kër gi ku fi jële yar gi bàyyi woo fi dara ku fi bàyyi yar gi jëlee woo fi dara yaree ko taxoon a jóg kon boo nee danga koy waxal wala da nga koy jubbantil fexeel ba mu tege ci yar ak i teggin ak njub ak xam-xam li képp la waaye boo yaakaar da ngay jéem a yëgit dara jëy sa mbi ci ay ñàkki teggin loolu yaa ko gërëm waaye war na laa leer na Sëñ Tuubaa gërëmu ko lu mat a bàyyi xel daraam jëmul suuf daraam jëmul ginnaaw léppam kanam la jëm te du koo bind wax ko wax ne yàlla suñ borom wallahu ala ma naqulu wakilun lii suñu borom moo ko tamponge ku ci mën dara li am solo nag mooy demee na noonu fexeel xam li taxoon a jóg sëriñ bi lan la nga ne ci ñàpp kese wootewul ne kaay leen xam ma kaay leen jaamu ma doo fekk fu ko sëriñ bi wax mu ci àddina rawatina fu mu ko bind kaay leen xam seen borom kaay leen jaamu ji seen borom nim leen ko santee nag loolu dafa aji xam-xam te lii sëñ bi woote boo demee ci Cheikh Tidiane Serif loolu ngay fekk mu woote ko Abdou Khadir Jilaan loolu ngay fekk mu woote ko moo tax ku leen wuy te àggoo ci yàlla xoolal sa bopp wuy ji sëñ te leer na ne sëñ Tuubaa yóbbu jaam ci yàlla ko taxoon a jóg wuy ji Cheikh te leer na ne Cheikh Tidiane yóbbu jaam ci yàlla ko taxoon a jóg Abdou Khadir Jéelaani li ko taxoon li mooy yóbbu jaam ci yàlla Seydina Limaamu yóbbu jaam ci yàlla leen taxoon a jóg kon bu boo leen wuy jee te yeggoo yow la wala ñoom la yow la di mun a wax mukk ne ñoom la yow la ak ka nga yaakaar ne mate na diw moomu ne ndax fekk ko jamono ku bëgg a àgg ci yàlla fooy fekk sa njubaa ci sa sëriñ bi nga jébbalu ku bëgg a àgg ci yàlla fooy fekk Cheikh Tidiane ci sëriñ bi nga jaayanteel mu jox la wird muy sa muqaddam ci xaadar geeg fu ci man di doon sëriñ bi nga jamonoon teel ne moom nga jaar la sa digganteeg sëriñ boobu leen mooy sa wasila bi nga xam ne boo fi fekkoon sëñ Tuubaa li muy def ci yow moo ko war a def ci yow ne mata na ko bu ko defee ci yow te mu nekk ci yow nga di ko dund wallahi al azim doo xool mukk mukk sa mbokku tiijaan wala sa mbokk xaadar wala laayeen di ko diingat ko ndax yéen bokk fa ngeen jëm nit du doon laayeen ba dootul doon jullit nit doon tiijaan ba dootul doon jullit nit du doon murit ba dootul doon jullit ay mbokki jullit lañ te mbokki jullit kii seen kilifa mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lu mu jàngale lu war diggante jullit ak morom ma te mu dëpp ko alxuraan innamal mu'minuuna ixwatun fa aslixoo bayna axawaykum lii yàlla mi bind yonent bi bind sëñ Tuubaa bind Seex Tijaan bind Abdul Xaadir Jilaani moo ko wax nee na ñi gëm yàlla mbokk lañ na rafetal seen diggantey mbokk yontu bi leeral nañu ko ci ci fànn yu bari laa yuminu ahadukum xataa yuhibbu li axihi maa yuhibbu li nafsihi kenn ci yéen ngëm yàllaam du wér te du wut ne lim bëggal boppam loolu la bëggal moromam loolu nag nañ ci natt suñ bopp ana murid yi nga xam ne liñ bëggal seen bopp moom lañ bëggal tijaan yi li tijaan yi bëggal seen bopp loolu lañ bëggal murid yi dangay ngay dem ba ngay dégg ñuy fooye naan am na koo xam ne bu yoroon caabi àjjana am na keneen koo xam ne jurit na ni moom te bu ñëwoon du dugg te àjjana ko mën a feesal ñëpp a ci xaj mën na yàlla ko mën a jeexal ñëpp ci xaj ji kon tee koo ñaan yàlla mu may la ko sa morom am ko ni yow mooy li am solo kéemtaan la maam Serigne Fall daan wax sëriñ rëy jëfa ko gën am na ñu dem sawara ñoo xam ne seen sëriñ mooy sëriñu suñ sëriñ sii mooy yónent bi alayhi salaatu wasalaam am na sahaaba du ma ne sahaaba sax mooy ñu àndoon ak yónent bi rek mais am na ñoo xam ne fekkee nañ jamono yónent bi jaayanteeg ñoom te ña nga sawara jaayante baa jubul surtout munaafiqoon bi bi ko yàlla suñu borom di wàcce dana ñooñu ña nga biir sawara te dañ topp yónent bi topp gu jubul segam topp gu jubadi ci yónent bi saa salaam mii sangu sëñ Tuubaa di sangu Cheikh Tidiane mën naa tàbbal nit sawara sàkkaan ak ñu topp sëñ Tuubaa toppin wu jubul wala Cheikh Tidiane waaye nga yaakaar ne taalibeb sëñ Tuubaa laa rek maa nga àjjana ngir bayit yoo xam ne yaa ko déggul te moom sëñ Tuubaa wax na ci bayit ne am na ku tàbbi sawara te la ko tàbbal sawara mooy ñàkk dégg arab daa am lu yàlla wax wala góor yàlla wax ko nga dégg ko noo xam ne dëppwul ak moom ni mu waxee ba jural la mbeewte goo xam ne moo la tàbbal sawara yow lii sëñ Tuubaa bind na ko mi ngi ci Mawaahibul Xudduus sëñ Tuubaa nee na muridin bi yaluzu yasaadu wa innahu min al aza mubaadu sëñ Tuubaa nee na képp kuy murid bu jaayanteeg man jokk ci man nee na kooku yasaadu dafay texe wa innahu min al aza mubaadu kooku dafay sori ak lor genn lor du ko jege léegi man jébbul naa rek maay murid boobu texe naa kon dana yomb di parce que dana yomb da nga naan sëñ Tuubaa murid gii muy wax kan la loolu nga war a laaj moo tax faral di wax ne ñi ñuy waxtaanal ñun ñi leen di déglu dañuy kumpa dañuñu kumpa ñun ñun ñuy déglu murid texe na murid day tàbbi na murid day mucc murid day am gërëmal yàlla xam nga loo ko war a laaj kan la sëriñ bi ne mooy murid moo ci war a tege murid moom day texe sëñ tubaa ko wax loolu boo ñu ko waxee boo ñu ko wax gannaaw sëñ bi wax na mooy li waaye nag sëñ tubaa bi mu waxee loolu kan la wax ne mooy murid akamata leeral te léeg-léeg wax ñu loolu moo gën foofu dañuy jéem a yëkkatil darajey sëriñ bi sëriñ bi sëriñ ñun ay murid lañ gëm nañ sëñ bi jeex na wóolu nañ ko doyloon nañ ko keneen ku wootee lijjanti wuñ ko mënuñ ko topp ndax topp nañ sëñ Tuubaa ba noppi ndax moo ñu doy gannaaw doy nañu ba noppi nag li liñ ñu war a leeralal mooy nan la ñuy fexe ba ñun ñu doy sëñ Tuubaa ay taalibe ba duñee kenn ci taalibe nan lañ war a doxee ban pas-pas lañ war a am ñu war a dundee dafa benn soxna bu doon bind thèse ci yoonu murid mu dem gëstu ji mbindam sëriñ bi ba mu ca bàyyeekoo dane murit gi mu gis ci mbedd mi ak murit gi Sëñ Tuubaa bind ci téere yi bokkuñu bokkuñu maa ciy faral di teg ne murit gi ci mbedd mi am na cofeel cofeel a ngi ci bëgg sëriñ bi mi ngi ci mais lan mooy jafe-jafe bi mooy lan la sëriñ tubaab bëggoon loolu néew na murit boo xam ne mën nga koo làmb fekk ko ci moom mais gis nga murit bi nga xam ne bëgg na Sëñ Tuubaa bëgg la sëriñ bi bëggoon mu ne ca ñàpp sax ca kooku weneen doxin faw dafay judd ci moom bu bokk ak nag ay sëñ bee fi nekk tàmbali ci sëñ bi sëñ bi amul morom ak dëgg la yii yëpp sëñ bi amu ko waaye nag yow loo jëlee ci loolu nag gannaaw bu sëñ bi nekkee fi amul morom jàmbaar la moo fi gën lum la jural yow mi koy wax bu dee boo fa bàyyee koo toj say kaas sàngara mun a koo bàyyi jëfandikoo mos naa koy bind ci Facebook bi waxu maam Cheikh Fall dana képp koo xam da ngay jaxasoo jigéen joo takkul wala ngay tux wala ngay naan sàngara maam Cheikh Fall nee na bu ëllëgee doo gis benn waaye ne waaye kenn mënuñoo tee gis maam man waxuma ko du samay wax dafa ko jottali rek kon dalaa leer ne moom lii maam Cheikh wax ne képp koy jëfandikoo bu ëllëgee doo ma gis moom ci la bóof te waaju koo bàyyi yow kon noo gëmee maam Cheikh Fall wala gëm gi moom ci xol bi lay nekk rek nga ne ko gëm naa ko gëm gi dafa am jëf yu ko war a yu war a moom defal nga def bàyyi nga bàyyi amul kenn koy topp ne ko yaay sama kilifa wala yaay sama wasila mu maanu ci yow lii bu ko defee boo liggéey yàlla rëq ndigam yàlla ko wax sëriñ bi bu matee sëriñ dafay bàyyi xel digganteem ak yàlla ci yow taalibe itam su matee taalibe dafay bàyyi xel digganteem ak yàlla ci sëriñ bi ñaar ñi buñ dajee dañuy lëngoo dox doxin wu rafet kii dafay ragal yàlla ci sëriñ bi sëriñ bi ragal yàlla ci taalibe bi du ko jay du ko wax lu mu gëmul du ko jottali loo xam dëppul lu ko yàlla jottali loo du ko tere lu ko yàlla terewul xalaatu ko sax kon kooku dana la digal waaye lim lay digal mooy li la yàlla digal lim lay tere mooy li la yàlla tere amul sax mu dem na ñëw lépp lu yàlla xaraamal dafay fexe ba nga won ginnaaw loola dimbali la ca nag lan la cay dimbale jox lay ngànnaay tuddal yàlla jëfandikool askar sàngam nekkal ci tool yi mooy malaat bi nga xam ne faaw da koy entrer hôpital defar ko dafay am waaye dafa mel ni yooyu yëpp dañ ko fa ñukk ndax dafa jafe de benn borom xam-xam dafay wax ne gis nga suñu yoonu tasawuf yii dafa am tolluwaay yu bokkul am na tolluwaay yoo xam ne mooy dal baax maanaam booy soo ko dugg ci l'école bi jardin d'enfant foofu la toll moo gën a xumb nag boo jógee jardin ma dugg élémentaire xaw a tàmbalee mos tuuti A B C D nangam 1 plus 1 boo fa bàyyeekoo dugg CM dugg ci X ak Y yi kenn. koo déglu rek ba ci yàlla mayee xam-xam mën ngaa xam fu mu doon léeg nit waxee foofu day leer ne daa am fu mu rek fa fa ma toll fa ngay waxee nag waaye foofu dafa war a jóg moom lay faral di misaal ne bu ñu buñ newoon këru lislaam a ngi nii boo fa làmbee fekk fa ñoo xam ne lislaam jaar naak ñoom foo xam ne dañoo séexlu lépp lu bon boo fa làmbee fekk fa ñoo xam ne lislaam jaaragul ak ñoom foo xam ne ñime nañ lu bon ñoom am na ci jullit ñi ñoo xam ne séexlu nañ lépp lu bon am na ci jullit ñi ñoo xam ne seexluwuñu lépp lu bon te moo ne jullit la kii fan la jaar ak lislaam ba lislaam seexluloo ko lépp lu bon kii nag fan la jaaragul ak lislaam ba seexloogul lu bon jar naa laaj lislaam day màgg ci doomu aadama bi dafa war a weesu dégg yàlla nga ba sa borom nga ne ko jàkk ci lépp lu mën a doon ay lex saan jullit piir dafay gis yàlla ci lépp waxuma gis yàlla képp xam nga boo gis yàlla rek dañuy xalaat ne am na benn waay boo gis wala mbir moo gis ne yàlla ngoog loolu ni ngeen ko weddee lañ ko weddee jullit dañ koy yar ba lu xool du ca gis kudul boroomam subhanahu wa taala moo tax ki lay dingaat sax naa la yàlla yàlla bi lii nangam gis yàlla du dëgg moom sax li muy bañ yaa ngi ko koy def moom yaa ngi gis yàlla ci moom moo tax boo ma mbéjee ma ne la jéggal naa la boo ma saagaa ma ne la jéggal naa la bu yàggee yaay dem ba xam ne waa ji kat gis yàlla bi na ndax bu gistoon yàlla dana jëflanteeg man waaye léeg-léeg da koy yéex a xam sax waaye koo saaga faywut koo dóor faywut koo tuumaal faywut moom ma nga ca lam nekk rek te li nga nekk yow yéen ci bokkoon ne mu bàyyi la ci dugg ci loo xam ne fekk si goo ko ci te gisoo ko mu wax lu bon gisoo ko mu def lu bon baatub laa ilaha te nit nag kum ragal rek mu ko ragalee mooy mën a lor ak bari njariñ kese njariñ mu yor laay bañ mu raw ma wala lor mu yor laay bañ mu xëppuma ko njariñ ak lor nag kenn ko yor muy suñ borom subhanahu wa taala an nafu wa duru min al rahmani laysa min al bidaani wa suudaani yàlla yor njariñ yàlla yor lor kon lu ñuy bëgg ci képp ku mën a doon ba mu tax ñu ñàkk sa ko suñ borom bañ a dellu ci moom loolu yàlla ko jar waaye kii la waaye nag ku ci yeewu kenn du dox sa diggante ak sa borom kenn du ci dox ndax xam nga ne bés a ngi ñëw boo xam ne boo ko bëggee wéetali ko du sotti misaal bi daa leer di bàmmeel lu jege la kan nga gis mu bëgg nit jeex tàkk ci moom ba ne suuraale leen ma ko moom kay yaay dem ma dellu rek xaar sama àpp man te ku yàkkamti ba jëlee fi sa bopp la nga yëg ba jëlee fi sa bopp lu ko gën a tar ngay fekki loolu yàlla ko ku xaru moom lu gën a metti la tax nga xaru ngay fekki yow moo tax xaar yàlla jël si la rek te ñëppay dem kon li gën a wér gën a wóor mooy sa borom na la jaral bu la yàlla jaralee nag di nga àkki ku mel ni sëñ Touba ku mel ni Cheikh Tidiane ku mel ni Abdou Khadir Jilaani ngir pas seen jëmm ya ñoom mais ngir ñu yóbbu la ci yàlla buñ bokkee àgg ci yàlla joxante loxo ñoo bokk ci kiñ àgg ñoo bokk ci kiñ xam ñoo bokk ci ki ñuy sàkku ngërëmam te dafa bokk ci lee yi lay xañ ngërëmal yàlla xeeb sa morom ak doyadil sa morom rawatina nitu yàlla man aada lii wali yan faxat azanto bil bi suñ borom moo ne képp ku noonu sama benn waliyu dig naa la xare te nga bëgg yàlla bëgg ngërëmal yàlla lu la koy jaral dara du la ko jaral dañ ne nit ki boo ko bañee boo ko bëggee tere jayoxu ak yang-yangeeg ci di nangam tere ko butéel bi rek bu ko bàyyee rek dootu ko def waaye li fek mi ngi koy jëfandikoo faaw dana kayang-kayang l'islam non la mel l'islam bu tàbbee ci yow nga di ko dund dana la bàyyiloo jëw dana la bàyyiloo rambaaj dana la bàyyiloo lépp lu ñaaw xataa julli gii dégg nga inna salaata tanha anil fahsha munkar dafay fekk lu ñaaw liñ ci waaye li suñu borom teg wala zikrullahi akbar tudd yàlla moo gën a màgg julli kon buñ tuddee yàlla dëgg-dëgg tudd rek dafa mel ni médicament la booy jëfandikoo ngir lan mu fàcc yow wax lu dul dëgg kañaan soxor lépp loo xam ne lu yàlla gërëmul la rek tudd yàlla dëgg-dëgg daf la cay jële moo tax boo seetloo turuqu suufiyee yi daanaka seen yoon dañ koo tabax ci tudd yàlla moom ngay bari lool boole ko sa xel di settantal kéemaanu suñ borom yi mu jural la bëgg yàlla goo xam ne foo ko natt weesu na ko koo bëgg lam bëgg nga bëgg ko dafa yomb gaa yaa ngi nii bëri na ñoo xam ne seen soxna yi li ñu leen jaral kéemaan la ndax dañ leen a bëgg di soxna yi itam am na ñoo xam ne seen borom kër yi jaral eh, kéemaan la parce que lu tax dañ leen a bëgg di waaye soxna si moom moo ma teree nelaw moom laa bëgg nangam ak nangam bu bëggee bëggoo bu wootee doo bu nee def leen doo def mbëggeel gi lu koy firndeel mënta nekk boo demee ci mat ma unóoree nii dégg nga sëñ wax ko nee na gis naa la ngay woote woo bëgg yàlla te di jëf lu yàlla tere taasil ilaah wa anta tuzahiru hubbuhu taasi mooy yaa ngi mooy ilaah yàlla wa anta tuzahiru te yow yaa ngi feeñal ne xubbu da ngaa bëgg yàlla mu ne haza lii de la amri waat naa ko ci sama dund fii xiyaas boo ko xiyaasee rek ba di on luñ fent la waaye mënta loolu lëgg bëgg yàlla di mooy yàlla sotti mënta ne koo bëgg inal muhibba liman yuhibbu muti'un képp koo xam ne am na ku mu bëgg rek la mu bëgg dafay topp di kon boo bëggee yàlla topp li yàlla bëgg boo bëggee yonent bi topp li saa salaam bëgg boo bëggee sa sëriñ tamit dëgg ci yow la mu bëgg da nga koy bëggale waaye yàlla na fekk nga xam ko boo ko xamul nag sa mbëggeel googu nit mën naa ñëw jëfandikoo ko nax la ci moom nax la dañ ne loo bëggul kenn du la ca nax foye sa pass pass leele nga gis ko xam gaay dañu bëgg Cheikh Moussa rek bo duggé amna way yo man mën nga woy seigne Touba di mën nga woy Cheikh Tidiane waye tantu Cheikh Moussa bo fi woyee ko xam xol yi des na am ben cieur wu reuy yu fi Cheikh Moussa am boo leen bëggee yëngal noy def Cheikh Moussa ngay dugg rek léegi bass bi jaxoso waye fekk ay julit yu tok ngay woy benn footballkat yaa mu dégg-dégg ta mo ne gis nga niñ bañé lool léegi dañ ñukoy naxé dugg ci waa ji wax wax wax te li mu bëgg mooy soxol sedd ba nga jël li nga yor jox ko man nag li ma yor damay xaar ki ma bëgg ma jox ko ko wallaay gis nga fi ñuy waxtaanalee buñ ko setantalul dinañu jural jéye joo xam ne ku neen ko tiim nii tiijaan buy bañ a gis murit murit bi bañ a gis te teguñu ko fenn sëñ Tuubaa ku ne xam na ne bu dajee ak alaaji Maalik yow mal xiyaam dañuy joxante loxo lëngoo la ñuy def nekk ci ginnaaw yonent sallallahu alayhi wasallam Abdou Xaadir Jilaani ñoom ñëpp nii lañ mel jama anallahu biim yow mal xiyaam lii la sëñ Tuubaa ñaan ci Masaalikul Jinaan yàlla ma yàlla booleeg ñoom yow mal gaa yi baax yi léegi ñun ñu bëgg ne doon ñett sëñ bi tijaan bi ne doon ñett Cheikh Tidiane ak ay mbokki tijaanam ñoom daal ñoo naan coow àjjana murid ñoom fu ñu jëm loolu kenn xamul lan la wérante goo xam ne kéemaan la bëgg a tuutil sëriñu jàmbur bëgg a ngandal amul njëriñ li am solo mooy ngandal ci sëñ bi yow defarool ci sëriñ bi baaxal ci sëriñ bi koo gis mu feeñal ak mbañ ci moom ak doy di ci moom xamal na yàllaa ko ko nattoo waaye sëriñ Tuubaa du ku ñuy bañ Cheikh Tidiane du ku ñuy bañ Yunus Sarr du ku ñuy bañ dañ leen di réere dañ leen di umpale nit dana xiif bay bëgg a nga woo ko ci añ mu neex xam nga bu la wuyusiwul yow yaay xam ne kii dafa feebar léeg-léeg nag yaa ko dimbaliwul yow naxanteel ak moom koo xeebal soo mbéem mu doyadal sa soos waaye boo ñëwee ne ko sëñ bi nag sa soom ngay añee nii mooy la waaw nga barkeeloog moom tuuti rek ñaari tibb rek ne ko tane na nag waaye yor naa lu ko gën fuuf kañ dem ak ko nga xool li ma yoru ko gën fuuf mooy la ah anam nga ne ko nañ dem nga xool bu la neexee sax mu ko fii jarul ngay jóg xaaral daal di dem jëli sa ndab lu neex li jox ko nga xool bu ñemee bàyyi sombi bi waaye fekk koog sombi ne ko sa sombi bi dara xamoo ko la ko yekkal waaye tooñ na la fekk moom ki nga ko yekkal fa mu ko teg yow tegu fa yow ki la yekkal yow mais bu ñëwul xewlu si yaa ko tooñ te li mooy am xeebal koo xeebal kilifa mu xeeb sa kilifa yàlla sax nee na bu ngeen demee ci yéeféer yi bu leen saaga seen yàlla ya kon danañ saaga sa yàlla te su boobaa nag wax dëgg yàlla danañ tooñ ci guur la waxal yaa am ci dugal ku ne sañ naa laa bire wax li sañ tubaa indi wax li sëñ tubaa jàngale kum ñor mu ñëw jël si ko ku ko jël siwul sëñ bi lim am doy na ko ndax li ko yàlla jox da koy sante boromam waaye bëgg a doyatil kilifa yi gars yi gi sa kilifa moom ñu wàccee sa kilifa rek nga koy jura koo saaga yaayam mu saaga sa yaay ku fonk yaayam du saaga yaayu jàmbur parce que day bañ ku saaga yaayam li képp la koo doyadal kilifa mu doyadal sa kilifa li am solo ne mooy génneel sa kilifa lu gànjaru lim indi moom mu génnee kilifaam lu gànjaru lim indi bu dee kiif kiif ku ne jaruñu yar ak teggin di feeñ njub di feeñ leeru yàlla di feeñ gindeeku di feeñ gi dañ ciy waxtaanal ñoo xam ne daanaka ay ind lañ jóge fa lañ ko jëlee mhm. am ñoo xam ne États-Unis lañ ko jëlee ñoo xam ne France lañ ko jëlee ngeen di waxtaan ci internet bi di déggante mu leer na les Cheikh Moussa jox moom lañ ko jox moom mu koy dund ni nga koy dundee ku ne ngërëmal yàlla di sa pas-pas te kenn xamul sax sa sëriñu morom man ma ma Cheikh Moussa neex rek ma ne ku dul Cheikh Moussa mënu koo xam ne kenn ku dul Baye mënu koo xam ne neel kay mënu ma koo xamal xanaa waaye yow xamal sa bopp am na ku ko xam te boo ko ne woon Baye Niass ko boo ko ne woon Cheikh Moussa xamu ko yàllaa yor mbiram tas dara yàlla xajul fenn saxul fenn dëkkul fenn yàlla dafa yaatu tënkuwul luy jeex la ñuy jiiroo naan boo yéexee mu jeex waaye yàlla ku a jeexal tijaan dañ ko mën a jeexal murid dañ ko mën a jeexal jullit yi sax mën nañ koo jeexal te ku ci sàggan wallaay ki nga jàppee bi yéeféer mën naa tàbbi àjjana bu ëllëgee yow ngay lijjanti noo duggee yow yàlla dafa yéeme de boo yaakaar ne sa julli yu bari yi sa naafile yu bari yi sa maanu gi sa nangam nangam am na ñoo xam ne yée leen di ma tàbbal leen sawara seen julli yu bari yeeg seen koor yu bari yeeg seen maanu yeeg jàng alxuraan yi xam nga lu tax moo leen yóbbu ñi xeeb koo xam ne nitu yàlla tiggi ba mu jural leen meram yàlla mën a julli mën a woor mën a naafile mën a jàng alxuraan di yokk ko ki ndànk-ndànk di dox jàpp ne am na foo toll ci yàlla xeeb waa ja nga xam ne sax màndikat la wala sàngara la te yàlla ko ko natto da nga xam fu mu mujj ñaata naankat yi sàngara ñoo mujj nekk ay góor yàlla kamal ñun ñi fi toog ku fi rey nit mën naa bañ a am yonent yàlla Moussa reyul nit ginnaaw ko lu ko yàlla def yonent boole ko ci ulul azmi yi xamal sa bopp waaye bul xam gaa yi fa ñuy mujj maanul ci yàlla ak ay jaamu koo mën a laa laabireel koo mën a wax dëgg waxal dëgg te yàlla képp tax waaye bu mu doon waxu dëggu xeebeel gindeeku naa ci yàlla xam naa yàlla ko xamul yàlla booy dee dem sa war yow foo jëm yow sa xam yàlla gi lu yokk yàlla ak ko wàññi mën ngaa tëkku nag ne yàlla kat moo ne ci ngay taxaw yàlla li mu wax sañ nga cee taxaw wax ne lii ku ko def boo dee dem sawara dégg nga sëñ Tuubaa na ko ci masaalik wa in takun aakila risqullaahi wa anta fi kulli zamanillaahi walam tatub li talabil xufraani mujtahidan nee na fa daaxilu niiraani booy lekk wërsëgu yàlla wii te waxtu wu nekk nga nekk ci caaxaan nekk ci po ba a tuub dellu ci sa borom subhaanahu wa te farlu sëñ Tuubaa nee na booy dee di dem sawara dafa dëppoog yàlla wax mooy yàlla caaxaan boo dee mu lakk la te yàlla nee na ku ma dugal sawara toroxal naa ku ma dugalal sawara rek toroxal naa te doomu aadama wax dëgg yàlla ni ko boromam teralee bu ko doon setantal di ko càmbar dara lu koy tabal sawara ndax moo koy jural meram yàlla dara du ko ko jaral ci kaw suuf sa baay bu takkee yaay dara manqué ci biir kër gi lekk baa ngi ñëw waxtu naan waa ngi ñëw waxtu boo tëddee tëdd fu nooy boo dee nit war nga ne bàyyi jërëjëf ne ndey jërëjëf mooy dugg ci waañ bi yàlla suñu borom lim ñu defal moo gën li ndey ak bàyyi defal doom ndax ndey ak bàyyi li ñuy defal doom sax dafay dugg ci li yàlla defal jaam yàllaa leen roof yërmande yàllaa leen roof cofeel ba yow ñu lay yërëm di la yiir sant leen nag ñu def loola kon nag boo fonkee ndey ak bàyyi ndax fi jaar ak yow noo war a def yàlla suñu borom léegi nag nga bàyyi fi yàlla xool cëru yàlla na di jël na koo xam ne li la yàlla defal la ko yàlla defal jël cëru yàlla na bëgg ko jox moom loolu moom du nangu yàlla du nangu du ko nangu ko xool ci suñ kër yi rek bàyyi def lépp man maay taaw léegi nag am rakk joo xam ne gis na ne taaw maay mag rek bàyyi xaw maa jox cër rek mu bëgg a cëru bàyyi jox ma ko man dinaa ko nangu ko nangu bàyyi du ko nangu xalaatu ko moo tax gis nga sëriñ si kilifa yi niñ bañee shirku ndax yàlla moom la gën a bañ yàlla rëy rëy gi foo ko natt weesu na ko moo tax ñi fi nekkoon di yàlla yàlla xoolal fa yàlla mu jëm ñoo xëy rek ñoo xam ne duñ moom amul sax ma dem te ñëw moo tax kilifa gi mat kilifa saa su nekk boo ko àkkee mu delloo ci yàlla wa man ala ilahi dallaka fa in xaalaftahu falil maridi tatma in sëñ Tuubaa nee na ku la tegtal yàlla boo wuuteeg moom ca seytaane nga jëm mu ne nag ki nga xam ne moo lay yóbbu ci yàlla moom wàcc na ki la yóbbul ci yàlla daw ko li kepp la ndëxañ téef li mooy fexe àgg ci suñ borom làq ngërëmam te fii la Cheikh Moussa woote du Cheikh Moussa képp fa waaye ku mos a woote lii képp képp la woote wootewul leneen léegi nag lu xisbin bi ma ladayhim farixoon loolu alxuraan la ko wax kenn du ko bañ kuréel woo gis gis na ni la sa kuréel wii safee ñor la ba mu gënal la weneen wudul moom jàppal ne moom it kuréelam noonu la mel ci moom su ko defee nag bu la leeree na lam nekk ay mbuusóor la dara lu ca njariñ laa biri ko ndax loolu yontu saa salaam daf ñu koo dénk julit julit mooy mbokkam sañ na koo laabire bu jàppee ne li mu nekk baaxul sañ na koo rek bu gisee ne li nga koy wax dëgg la mu fekk si la fay laay alhamdu bu la fekk siwul maanul diggante ma boromam lu jàpp ndal la waaye xëccoo bi xiiroo bi ŋaayoo bi werante beeg nangam ak nangam te werante sëñ Tuubaa ñaata yoon la ko tere fen nga wax ko nit ñaata yoon la ko tere demal ci nëw ju teggin gi ni mu ko jàngalee kéemtaan la kon sant yàlla bu wér bi jamono tollee fii yàlla defal ñu ak ràññee Cheikh Moussa bi ko waaj a àkkee ne ko damaa dégg diw mu ne nangam ma dégg diw mu ne nangam ma dégg diw mu ne nangam te kàddu yooyu bu ma ci dëggal weddi ba ca des ki nee na samay ndëggu teg naa ko ci mbaggi mbooleem góor yàlla yi min aadama ila nafxi fi suur la ko dalee ca aadama ba keroog ñuy ëf ëf bufta bi kii ne yàlla wamatal na ma loo xam ne mës koo wamatal kenn te du ko wamatal kenn ba faw kii ne kenn du xam yàlla te dugg ne sama bunt bii ci nga ñëw waaf fi ci nga ñëw boof fi te boo dëggalee kii weddi ko la rek Cheikh Moussa dana ko wax yooyu du seeni wax waxi pays ba la gis nga lii ku ci gindeeku am na werante boo xam doo ci dugg doo bokk ki nga xam ne daa dégg wax ji mu déggee wax ji ci jëmm ji bàyyi koo képp daal di ko fay tënk nag bés bu ko déggaatee ci keneen dégg gi mu ko dégg ci kii moo tax day weddi kële fekk ne ki wax fii mooy ki wax fii boo ko xamee da nga leen di bokk dëggal ñoom ñaar waaye boo bokkul nag ca ña nga xam ne miin nañ loola xam nañ loola gindeeku nañ ci dangay ngay gëm kii weddi kii rek te boo weddi kii mën na laa jural ngaañ goo xam ne kii bi mu lay wax lii nga weddi kële taxutoon taxutoon di moo tax dafa màgg goo xam ne ci baatin ku ko deful ba mag ñay werante boo yeboo toog rek te bañ cee dugg fa xul kama xaala zaki abdul waduud kalaamul awliyaa lastu afhamu li ana ni ana ana wa hum humoo waxu góor yàlla yi man dégguma ko ndax man maay man ñoom ñooy ñoom daal di ci maanu lii képp la Cheikh Moussa nag kum nopp ci yow lii la lay xamal xamal sa borom xamal li sa borom gërëm ne nag sama jaamu yàlla gii bu ko benn taalibe yaakaar yow mal xiyaam ku ma fa yaakaaree dara dara laa la fa yoreel li da koo teel a leeral li muy bañ mooy nga gëlëm li muy bañ mooy nga xaar ci moom loo xam ne ci loxo yàlla la ne xakk sa yow mal xiyaam gën jëm benn taalib bu ma fa yaakaar jaamu yàlla gi may jaamu yàlla su ma ko yàlla fayee am naa ci soxla bu ko benn taalibe yaakaar waaye lu mu ci teg li ma séq ak yéen mooy xamaleen yàlla xamaleen nuñ koy jaamoo bu ëllëgee yàlla bokk ñu fay la wax bu ëllëgee yàlla bokk ñu fay kon moom gis nga mu la bëgg a xamal ci la ne boo ci nekkee ci la ne boo ci nekkul ci la ne dafa wàcc de xam na yàlla mi ngi jaamu yàlla day fexe ba nga xam yàlla di jaamu yàlla ni muy jaamoo yàlla bu ëllëgee yàlla bokk leen fay moom nag bu ci nekkee nekkoo ci yaa boole sa bopp ci ma waaye bokk goo lii nag ni mu valable ci Cheikh Moussa noonu la valable ci sëñ Touba sëñ Touba nee na tallaahi loolu ku ne xam na ne waat la billaahi wallaahi tallaahi sëñ Touba dana tallaahi laysa yanfau cherchu hada inda xulul ramsi xerlu huda sëñ Touba nee na ku ñuy yor ci bàmmeelam dara du ko fa jariñ lu dul njub fii la ko sëñ bi waxee fii la ko waxee ne wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis bind naa bàyyi fii sama ginnaaw bu dara fee seen bët du ma layoo fi ba noppi di layoo yow man xeex moo tax ku koy xaar ca pénc ma da ngay waru lu fay wut ñun ñu tooñu ñu amuñ mbokk muñ kalaamee lu ñu wut tribunal boo xëyee doxi say soxla ku jàng tësuru si xaar di nga dégg sañ tuwaay ne yàlla taxaral na ma xisaab du ko ñuy xisaab du ko ñuy réglé waaye yemale ko ci boppam dafa rëdd yoon woo xam ne ni mu ci jaaree boo ci ni jaaree mucc ci xisaab waaye dañ fay bàyyi li ñuy musal ci xisaab na nekk ciy werante nag bëgg a wutal sëriñ bi daraja ak nag yow yàlla jox na ko daraja ji ba noppi yow fexeel am daraja ci sëñ bi te mooy topp lim digle won ginnaaw lim tere sax ca rek lii mooy li gën a wër mooy li gën a wër Cheikh Moussa fii képp képp la ñu woo fas yéene nekk ay jullit xaqan ay taalibe yoo xam ne ngërëmal yàlla mooy seen pas-pas ñu wéete ak buñ wéttaliko lii nag mooy li raaf ci jamono mooy li néew a gis koo gis mi ngi wut xaalis mi ngi wut dollar mi ngi wut franc fa mi ngi wut compte banque ajinaas nangam nangam jàppale ma ci compte bi waaye léegi sa compte àllaaxira loo fa def loo fa def te suñ compte banque yi ku nekkoo boo mu dolleeku su fa 1000 francs nekkee bëgg nga suba 5000 ginnaaw suba 10 000 1 million nangam ak nangam waaye xaalis bi macha allah fa dara wax ne dërëm bala ko yàllay jox wut ngërëm a tax mm-hmm. nee na dërëm bala ko yàllay jox nee na wutee ji ko ngërëm. kese waaye dajale ko ngir tiitaru rek an takka takaasuru lu ci yàlla teg xataa zurtumul maqaabir rek kallaa sawfa taalamuun suma kallaa sawfa taalamuun kallaa law taalamuun gis nga ñetti taalamuun di ngeen xam di ngeen xam di ngeen xami waaye taxul ñu yeewu rek mun a ina ina insaan li rabbi la kanut doomu aadama ku ko gën a doy waat diggante ma borom kéemaan damay faral di wax ne ñun liñ moom liñ moom ñun te dug moomeel sax ak ndénkaan la ñun liñ moom bëgguñu mu moy amul benn doomu adama bu bëgg lim mom moy ko téléphone bi bu lay moy ngay réparer ji bo bëssé bëss ñëwul rek taktil bi yaquna rek nga sété ko la ci tan ngir mu réparer ko ndax bëggo mu moy la auto bi bu la moyee nga tal takul nga né man kay dibali ma gaaw fexel mu tak bu ma moy wa légui yow no def ak sa borom bi la mom yow ndax ngi sa bop yow ngir baña moy sa borom bi la bind té ni la yalla momé mo gëna mat momel, fouf ni nga momé téléphone bi ni nga momé auto bi am na ñoo xam ne nag ñooy maan wala réparateur ci yàlla reparateur ci yàlla boo bëggee bañ a mooy sa borom ñoo lay réparé ba doon mooy yàlla loolu mooy sëriñ bu mat sëriñ moom lañ yàlla defal mooy Cheikh Moussa Cissé njàmme borom daaru ci ñun yàlla ñu ko yàlla fayal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ci jaar jaar daal dañu nekkoon daal dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam dana wax ni su ko ko am. abonné wu ci seen YouTube bu Ndiamé TV bësal notification bi ñu tàmbal nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.